jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara sëñ Mbàkke démb bi ñu yëkkati jataay bi ñoo ngi woon ci bayit wu am solo ni bayit yépp amee solo sëriñ bi wax ki bëgga topp yonent bi te amuti teggin ñaar ñu salfaañoo nag la <coughs> bëgga topp yonent bi te amooy teggin ndeke am ay teggin mooy topp ma doon wax ci ñiy yóbbu nit ñi ca màggal ga ak ñiy màggali te kër goo ci dem ka nga fay fekk day fees dell ki teggin kon booy dem yóbbuli teggin boo demee nekk faa ki teggin boo fa jógee di ñibbi yóbbul teggin ya di ko tegginoo ba ëllëg wala bët déwén yàlla ñu fekk déwén te weesu ko waaw bëy baa ngoog mu ne wa huwa wa huwa fi daarayni xayru kanzi wa xayru maxtazza bihi suu izzi wa moom teggin nee na moom teggin fi daarayni ñaari kër yi kërug àdduna ak àllaa kërug àllaaxira teggi na fa gën teggi na gën ci àdduna teggi na gën bu ëllëgee ndax ñi ami teggin bu ëllëgee buñ leen fayee teggin ya nit mën naa am ci ay teggin ak jikko yu rafet lu munta am ci koor ak julli yàlla nañ ami teggin ngeen am ko waaw yàlla nañ ami teggin ngeen am ko danañu wax nag lan mooy teg ñan yan ñooy teggin danañu ko wax ci biir téere bi waaw nee kuy kuy am teraanga ci àdduna di ko am fële amoo lu mel ni teggin mukk ñu ne ko ha mu ne li annahu li annahu l munawwirul janaani kama yuqarrabu ilal jinaani waaw nee teggin mooy leeralal nit ki kanamam ak ginnaawam mooy leeral ndeyjooram ak càmmooñam ay teggin allahu akbar nee yemu ca de waaye ay teggin mooy tax nit jege aljanna ay teggin mooy tax nit jege aljanna maanaam mooy tax nit dugg aljanna teggin kon ñi ko laaj mu bind leen nazm mu ngi wax yi tax ñu bindaloo ko nee teggin wa yujibul madaxa la dal jiiraani kama yubaadu ani niiraani ne na teggin mën naa tax say dëkkandoo ñépp di la tagg teggin mën naa tax say dëkkandoo ñépp di la tagg allahu akbar teggin mën naa tax say dëkkandoo ñépp di la tagg sag mbaax sag yiw say teggin nangam nangam ndax danga ami teggin waaye boo ñàkkee teggin bët bu set ñu wax la tubaarkal la noonu ko Serigne Cheikh daan jàngale nee am ay teggin day tax sori sawara ginnaaw yu jinaan yu baaxidu niiraan loolu jaar naa am teggin day taxa jege aljanna teggin day taxa sori sawara ah kon nag fa qumtu musri'an ila aljawaabi wa artaji rida maa thawaabi nee na ma daal di waajaluma ko ma daal jóg gaaw fas yéene tontu ñooñu nga xam ne ñoo bëgg teggin yi almuriduuna ñépp waaw góor ak jigéen allahu akbar waaw su nga ba demee ca dëkk ba màggaleeg jàmm da gis euh, boroom kër gi di wax euh, boroom kër gu jigéen gi soxna si soxna si di wax boroom kër gi sëriñ bi léeg-léeg ñuy wootante wootante yoo xam ne daanaka fottoso lay doon ak yu ni demee euh, ay ay langage codé yoo xam ne <laughs> ku fa doon ganti amoo teggin yooyu doo ko xam mu ami teggin tabarkàlla baax na de sëriñ Mbàkke si nee na yàlla na ko yàlla yokk wér wax sëriñ bi day nelaw loolu nee loolu du ay teggin ñu ne ñuy wax mu sëriñ bi day day dallu seeta loolu kon sëriñ bi day nelaw ñu ne teg foofa teggin yim laaj mooy sëriñ bi day dallu ñu ne sëriñ bi day jooy duñ ko wax lu ñuy wax mu ne sëriñ bi day tuur ay leer sëriñ bi day tuuri leer ay ay yu am solo waaw sëriñ bi daa faatu duñ ko wax luñ wax daa wàccub liggéey daa wàccub liggéey ci waaw gis nga baat yooyu terme yooyu dafa baax gis nga moo tax teel a jàng xadis mag ñi daan wax nan jàng fiq ba pare ndax teel a jàng fiq ba pare daf lay may teg teggin ci kër waa kër yonent bi boo teelee jàng hadis te teeloo jàng fiq boo moytul doo fekk fukk su mukk fu ñu naan suñu yaa Aïcha yaay Aïcha nga ne ko yaa Aïcha Aïcha rek ngay wax ndax téere hadis li ci ëpp dañ naan an Aïchata rek door na ummil na waaye léeg-léeg ñu naan Aïcha rek te duñ ca teg ummil na loolu nag boroom xam-xam yi jàng ci xam-xam yooyu ñoo ñu koy indil di ñu ko gëstul lépp rek bëgg nu ami teggin ca ñoom ami teggin ci sahaaba yi rawatina seen kilifa googu di sunu kilifa sallallahu alayhi wa sallam kon mi ngi tàmbali léegi tontunu tontunu ci e, loolu ñu ko ñu sàkku ci moom waaw waaw loolu ñu sàkku ci moom nee na dana ko tënk waaw dana ko tënk tënk goo xam ne gii ku ko bëgg mokkal danga nga ko mokk da ko mën a mokkal tabarkalla waaw nadamtuhu nadman xawal manafia bi fadli man waada an yudafia ne danaa ko nose nose goo xam ne gii dana am ay njëriñ yu bari waaw ci mbaaxu yàlla mi nga xam ne moo ne ku ko di ko liggéeyal moo moo lay aar laallani ahwi bihi ridwana wal amna yowma al xawfi wal xufraana mu ne xëy na ma ame ca ngërëmam ame ca euh, kóolu téem bis ba ñëppi tiit waaye ame ca it njëggalam aca aleykumu <laughs> aleykumu jël leen aleykumu jël leen seen bindukaay aleykumu jël leen enregistré aleykumu filme leen aleykumu audio leen waaw aleykumu whatsapp leen aleykumu téléphone leen ñan yaa machara tullaabi yéen ñi bëgg a xam ñëpp yéen ñi sakkoo xam ñëpp summa aleykumu bisal jawaab yi waaw jël leen bindukaay yi te ngeen jël tontu li bind leen ko enregistré leen ko denc leen ko jëfe leen ko ñu ne ah mu ne li tax ma bëgg ngeen jël ko fiihi min al axlaaqi wal aadaabi maa sa yaquudukum ila sawaabi nee fii fiihi am na ci sama tontu lii minal axlaaqi ci ay jikko wal aadaabi ak i teggin maa loo xam ne bu ngeen ko jëlee sa yaquudukum ila sawaabi dana leen teg fa gën a tege dana leen teg fa gën ci fu ñuy tege dana leen teg ci fa gën ci fu ñuy tege fii min al irshaadi wal ifaada maa laa yamallu minhu suu iraada ñu ne tontu bi da ngeen ci fekk irshaad irshaad dégg ngeen baat bi mooy ca al mustarshiduuna wal mustarshidaat moom ngeen dégg suñu mbokkum daara Mansour Diop tudde ko émission boobu irshaad moom ngeen dégg télévision boobu Mourchid TV tudde ko télé ba kero ba Moussa tëjee daaram yàkkale dongo yi di wuti xam-xam moom la doon jàngi mooy rushdu ala an tuallimani mimma ullimta rushda sëñ bi nee na fii nekk na ci sama tontu lii min al irshaadi wal ifaada maa laa yama minhu soo iraada ku am volonté du sonn mukk ci limuy muy bëgg a wax <coughs> waaye nag ku tayal bokkoo ku bëri nelaw bëgg ko waaw ma bàjjen ba ndeysaan meer soxna jóob ma daan wax gone gi la kañ ngay nelaw <laughs> ma ne ko bàjjan àdduna amuti nelaw mu ne ma nit ñaa ngi koy def ma ne ko dañu entraîné de rek mu bàyyi fa ndékki la waaw ma ne ko àdduna si gars yi nelawuñ dañuy entraîné <clears throat> moo tax ko yëpp wàññi ko waaw mu ngoog wa yastawi mubtadiun wa muntahi fi nafihi wa xayruhu laa yantahi allahu akbar nee xam-xam yim ñu bëgg a jàngal teggin yim ñu bëgg a jàngal orientation yim ñuy bëgg a jox njariñ yim ñuy bëgg a jox nee na kuy dal jàng ak kuy beqee ci yem kuy door a tàmbalee ku àggale ci yem <clears throat> kuy deer départ ak ku arrivé yam njariñ li moom day jëriñ gone di jëriñ mag allahu akbar di jëriñ ndaw waaw di jëriñ mag di jariñ baay di jëriñ doom di jëriñ doom di jëriñ ndey ñépp nag fi nafihi wa xayruhu la yantahi cettt nga ne ko ha ah, mu ne is is qad hawa kayfiyatal wusuli li ahsani al axlaaqi wal maquuli wal ma amoo li ngeen baal ma nee na tontu li mu tontu tontu li ñu tontu ëmb na naka la ñuy ca yàlla wala boog ëmb na naka la ñuy àgg ci jikko yu rafet naka la ñuy àgg ci jikko yu ñu yaakaar mu ñu téere bi dina ko jàngale ba ku def noona àgg ca jikko yooya te ku àgg ca jikko yooya bokk ci ñi gën ci pinc mi moo xam ndaw nga moo xam mag nga samaytuhu nahja qadaa il xaaji fi xasdi zarci cheyqinal dul dula dul xaaji waaw wala bokk dal xaaji nee na nahju qadaa il xaaji la ko tudde bëgg cee góob mbayum sunu sëriñ ba mbayam sunu sëriñ ba la ci bëgg góob maanaam récolté ko ci wallahi rabbi asalul taqabula bi fadlihi wa an yutimma al amala wa an yakuna waaw kasmihi allahu akbar waaw ñu ne ko bismillah teg na ci ay bayit dóor na ñëw nag ci <clears throat> tontu yi nga xam ne moom la bëgg tontu ñi laaj moom la bëgga a tontu al muriduuna mu tàmbali yaa machara tullaabi yaa machara tullaabi minni asmau nasihatan ankum shaqaan tadfau yaa machara tullaab mbooleem yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg ma bindal leen ay teggin yoo xam ne ku ca jaar jag waaw ku ca jaar jat ku ca jaar noppalu noppal say bokk jege alayhi salaam ëllëg jege aljanna ëllëg sori sa war a ëllëg yéen ñi bëgg loolu min nismau déglu leen ma su ngeen ma dégloo ma indi leen benn laahi biir goo xam ne lii taxa texee di ci àdduna la leen di fajal la leen di fegal waaw euh, chaqa mooy ku bari jafeñ-jafeñ loolu la yàlla waxoon aadama ba mu ko dugalee aljanna moog xawa mu ne ko falaa yuxrijannakuma minal jannati fa tashqa fexeel ba sa noon bi bu mu la génne ci programme bi nga nekk fa su la génnee booy xëy balaa ngoon a jot tashqa nga commencé souffrir bëri na lu nit di dund ci pénc mi li ko waral rek mooy ñàkk déglu mag ñi jiite woon pénc mi di xamoon pénc mi ndax ki jaar fi nga jaar séentul la ko daloon waaw euh, baay mbay na ko yàlla yërëm bu ñu masaan jógee dakaar jëm Mbàkke te nu bokk oto bi may dawal dafa bokk ci leçon yi mu daan joxe ci wàllu dawal boo toppee ci oto lu ginnaaw otom def na ko sa ginnaaw oto def <coughs> luy ginnaaw otom def mooy ki sa kanam bu bësee pédale daa am ñaari làmp yu tàkk ci ginnaaw def ko sa oto yow tam dëkk bi nag léeg-léeg nga topp ci ginnaaw oto boo xam ne bi ñaar yooyu duñ tàkk te ñu romb alkaati ak gendarme yi te duñ leen dara xaw nag lu xew yàlla noonu yàlla yërëm waaye daal boo toppee ci ginnaaw oto bu ñaari làmpam bi ci ginnaaw tàkkee na ko sa ñaar def lii loolu mooy mag ñi dañoo jaar ci penc mii di Sénégal xam ko nag lool xam kajoor xam bawal xam siin xam saalum mag ñi waaw Dakar gii nag moom ñoo waa bawal yi ñoo fi ñëw waa siin yeeg waa saalum ñu ñëw daje fi rek fekk fi ab Ablaye Makhtar Diop waaye nun <laughs> nous sommes pas des Dakarois waaw <laughs> nous sommes des étrangers euh, parmi vous <laughs> kon sëriñ boobu nee na <clears throat> ginnaaw moonu mën ci mbir yi mag ñu ci mbir yi jiitu nu ci mbir yi nan ko may suñuy nopp mu ne ah mu ne waaw nasihatan lakum li wajhillahi tanbiha kulli xaafilin wasaahi mu ne yàlla rekk a tax nag ma bëgg leen a biir yàlla rekk a tax é waaw nee na ñi sàgganoon ñi sàgganoon ma yee leen waaw nee na ñi ñi gëlëmoon ma orienté leen lay wax nga dëgg tariqatul adabi rahmatu saxir kal abi wal ummi wa tawxirul kabir mu ne teggin nag ab dëkk la teggin ab dëkk la mel ni nga ne teggin mooy cil ma xam mbaakool <laughs> waaw dëgg la jërëjëf waa cil ma xam mbaakool dégg naa <laughs> dégg naa may nañ Alioune ab teere cil ma xam mbaakool waaw <laughs> ndax fu mu xëyee rek ni cil ma xam mbaakool <coughs> kon nag cil ma xam mbaakool tariqatul adabi al adab muy teggin ñu ne kon tey mooy cil ma xam mbaakool léegi nag dafa am lu fay yóbbu walla ñu fay yóbbu nit ku fa bëgg a dem ku bëgg a dem ci péncum teggin sëriñ bi fooy jaar mu ne raxmatu saxiir allahu akbar ku bëgg a dem ci dëkk ba ñuy wax ay teggin li ngay njëkke mooy yërëm ndaw hmm? waaw yërëm ndaw waaw ndaw dañ koy yërëm xale allahu akbar xale dañ ko yërëm ndax fi nga toll fi la jëm si moom xale bi fi nga toll fi la jëm si xalaatal fi nga jaar fépp ba agsi fi nga jëm si <clears throat> nga yëg ni xale bii mën naa jaar fu ko gën a naqari mbaa fu ko gën a metti waaw xale yépp dangay gis ne xale bii fi nga fi nga toll la jëm si bu fekkee yaa ngi ci cinquante ans xale bi mu ngi ci six léegi xoolal li dox digganteem ak yow ci am ndox ci am ndog ci njaxas te nga ne ci pinc moo xam ne at moo ne ndax mu tane daaw mu gën a far dellu ginnaaw waaw borom wolofal baa wax at moo ne ndax mu tane daaw mu gën a far dellu ginnaaw nga seen pépinière bu xale yi yu góor yaa ngi ñëw yu jigéen yaa ngi ñëw gàllankoor yu bari na seen kanam yu jigéen ñi leeg léeg la yàlla xam doy na lu ñëpp xam lu ci waaye mbax mu doy ñu góor ñi leeg léeg waaw gàllankoor yeeg daan yeeg waaw télescopage yeeg lu leen ci seen kanam waaw bu àdduna leerul nañ ñi leer ci mag ñi leer ci ndaw ñi gono yooyu fuñ jëm gone yi nga xam ne bu école ubbee bii incha allah lañ nar a ŋàbb seen loxo yi ñuy yóbbu ca daara ya ñii yóbbu leen ci école ya <coughs> ña ca daara ya lu ñuy daj ëllëg pour mel ni waa daara ña ci école lan la ñuy ëllëg pour mel ni ñu waa école <coughs> waaw loolu nee na ku bëgg a dem ci dëkku teggin li nga njëkk a def mooy yërëm gone yi yërëm gone yi bind bii day ku dëkkoon ak sëriñ saaliwu man nga war nga koo mokkal waaw laaj ko suñ saaliwu ture waaw waaw ak ñi mel ni moom suñ saaliwu si ñoom ak ñi ngeen ci xam xaw ma leen sëriñ <coughs> boobu ni mu yërëm woon gone si Cheikh Awa Balla Gueye nee na gone ga daa ñëw ca néeg ba di seet ci ron gi di yëkk ci rek sëñ baa ngi toog di waxtaan ak gan yi ba mu yàgg sëñ Saaliw ne ko looy seet mu ne ko sama keesum biskit mbokk yi yërëm gone ba sëriñ bi may leen ñuy denc ay keesi mbiskit néegam néeg suñ saaliwu gone ya di fa denc seen keesi mbiskit looy seet loolu la ko waxee ndeysaan ci tombu tom allahu akbar tombu yërëmtalu looy seet xale ba ne ko suma mbiskit suñ saaliwu ne ko foo ko tegoon ndeysaan mu ne ko xanaa ca soroon gii waaw suñ saalib daal ne ko giñ naa ci yàlla jëluma ko ndeysaan allahu akbar xanaa yërëm gone foofu la yem ala kulli xaal benn ngoog benn jéego ñaareel ba euh, baay na yërëm doom ndey na yërëm doom c'est-à-dire baay ndey yi nan jàng yërëm xale yi waaw si di éducation boo koy jàng xale ku kenn du ko yuuxu xale kenn du ko gëdd xale kenn du ko yàkkamti mukk ginnaaw bi nga yërëmee gone nag wa tawxiirul kabir mag dañ koy ormaal lépp loo am ci orma ju jëm ci mag doyut mag dañ koy ormaal waaw hmm? waaw sëriñ baa ñu tàmbali jàngal teggin yooyu wa ja'lu mithlika ka nafsika sawa waaw ki nga jàkkaar lool def ko ni sa bopp li wa ci xaaliqin alal arshi istawa ki nga jàkkaar lool jàppe ko ni sa bopp ndax al muslimu mir'atu axihi boo jàkkaarloog imaam lay Ndaw ca ndànd jàkkaar jàppal ne sa bopp nga jàkkaar lool moom it mu jàpp ne boppam la jàkkaar lool loolu mooy maal mag mbokk yi teg leen seen baaram foofu bind bi jeexut bind bi jeexut danañ ànd dellusiwaat ci incha allah subhanahu wa taala màggal gaa ngi ñëw yàlla ñu fi fekk buy dem yàlla ñu fi bàyyi nu màggale ñun ñëpp tabarakallahu te màggale na sëriñ ba wax ak porte parole sëñ Basiru Abdul Xaadir ak ñi nga xam ne ñoom lañ teg ci ba ba nu koy organiser sunu mbokk yi xëy xibaar yaa ngi nii taxaw yor seen kayit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar tubaab firiñ fàncal na ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu association mi C3S yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.